Bonjour à tous et bienvenue. Vous suivez la rétrospective des faits de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Début de semaine macabre avec 15 cas de noyades dans des plages de la banlieue de Dakar. Les victimes sont âgées entre et ans. Une situation qui inquiète les autorités mais aussi les parents qui demandent un dispositif de veille et d'alerte. El Hadj Moussa On a vécu un week-end macabre dans les plages de la banlieue. Sur la plage de Mboro en début de week-end, trois cas de noyades ont été enregistrés. Les corps ont été repêchés par les sapeurs cinq rescapés parmi les noyés. Les corps sans vie des autres cinq jeunes ont été même repêchés par les sapeurs-pompiers. Pendant ce temps, la plage de Gadaï, deux jeunes meurent noyés, ce qui de 12 cas de noyade et les trois de Mboro. A la tranche d'âge des 15 noyés varie entre 12 et 22 ans. La responsabilité de tous est engagée. Les autorités, surtout les préfets, les maires et même la protection doivent renforcer le dispositif de surveillance des plages appliquant une certaine rigueur tout en mettant en contribution la gendarmerie pour dissuader la fréquentation des plages non autorisées, comme du temps de l'état d'urgence sanitaire où les plages ont été bien même gérées par un dispositif. Les sapeurs-pompiers doivent ériger des flotteurs pour délimiter les zones dans les plages autorisées en cette période de forte fréquentation des plages par les jeunes, voire installer de petites brigades d'intervention les plages pour appuyer les maîtres nageurs volontaires qui ne bénéficient collectivités territoriales. La responsabilité des parents pointée du doigt. Ces derniers doivent redoubler de vigilance concernant la sortie des enfants qui des fois se dérobent des classes et même de la maison pour se rendre à la mer par groupe. La Grande Côte va encore continuer de faire des victimes si nous ne redoublons pas d'efforts sur la surveillance des plages et l'occupation des enfants pour les éviter de se rendre dans les plages non autorisées et autorisées en cette FM. À Kaolack, des étudiants de l'université du Sine-Saloum grève mardi ont caillassé et endommagé des bureaux, des climatiseurs et mobilier. Ils ont cassé des vitres et occasionné d'autres dégâts. Le lendemain, mercredi, les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal de Kaolack et Diourbel ont également perturbé les enseignements dans les lycées pour exiger de meilleures conditions d'études. Il y a eu une dizaine d'interpellations avec l'intervention des forces de sécurité. Face à e à Dakar jusqu'à nouvel ordre. En réunion mercredi, la section SAES de Dakar a estimé qu'il n'est pas possible de mener les activités en toute sécurité. Fatou Sekoyoum, chargé des revendications de la section SAES de Dakar, s'en explique au micro de El Hadj Malick Ndiaye. Alors, euh, pour rappel, euh, la décision a été prise hier hein, euh, lors de la réunion du bureau de la coordination élargie au EG de section. En principe, c'est une prérogative qui est dévolue à l'Assemblée générale du Mais malheureusement, celles-ci ne pouvant pas être réunies à l'urgence, nous avons décidé de prendre nos responsabilités puisque nous sommes là pour défendre les intérêts matériels et moraux de nos militants. Et face aux agressions physiques, Euh, verbale et, et, et matérielle ont eu à subir euh, au cours de ces derniers jours, nous avons décidé effectivement de les protéger. Et cette protection passe bien sûr par la suspension des cours jusqu'à avoir une visibilité dans la situation qui sévit aujourd'hui au niveau du campus de Dakar. Le Forum civil section Guédiawaye a organisé mercredi un sitting devant la mairie de Guédiawaye pour exiger l'annulation du décret de déclassement du littoral. Les populations n'ont citoyenne selon l'organisation qui exige l'audit de l'assiette foncière car beaucoup d'occupations sont illégales. Michel Mendy est le coordonnateur du Forum civil section Guédiawaye avec Moussa Thiam. Euh, ce décret-là, nous disons que ne sommes pas d'accord. Demandons son annulation tout simplement. la procédure pour arriver à ce décret de déclassement ne nous agrée pas parce qu'à aucun moment les populations de Guédiawaye n'ont été impliquées dans les consultations. a ici la la ville a un littoral qui a sollicité tout simplement les conseils municipaux de la ville en leur promettant des terrains à usage d'habitation des cités municipales et qui a demandé qu'on fasse une délibération. La délibération a été approuvée par le préfet et voilà, ça s'est enclenché comme ça. La société civile de Guédiois justement avait proposé qu'on fasse un plan d'aménagement concerté, c'est-à-dire qu'on organise des forats pour consulter les citoyens, ensuite euh, pouvoir aboutir la lui-même, M. Maxal, dans ses différentes déclarations concernant cette bande jamais il n'a été question pour lui d'éradiquer la bande. Il a toujours instruit, notamment le ministre de l'Environnement et Développement durable, à s'occuper de la bande, à voir pourquoi les gens étaient autant intéressés par l'histoire de cette bande-là depuis le passage de la VRN3. Et il a instruit clairement que les, les Niaï, les arbres et les dunes soient protégés. Donc ça nous attend aujourd'hui qu'ils puissent prendre un tel décret. Affaire Télico Madiambal Diagne, le patron du groupe Avenir Communication, est condamné à six mois de prison, dont trois fermes et d'une amende de 500 000 francs CFA et millions de dommages. Madiambal Diagne était jugé pour diffamation après une plainte du juge Souleymane Télico, mais ses conseillers contestent et interjettent appel. Madiambal Diagne n'est d'ailleurs pas surpris, il s'était préparé à la condamnation pour

on savait que l'Union des magistrats sénégalais avait s'était mobilisée et avait voulu sauver la face à son président et donc avait voulu donner l'exemple peut-être euh, à un impertinent comme Badiambal. Donc vraiment, on savait la décision, on savait qu'elle allait tomber. On s'y attendait, on s'y était préparé. Tous nos amis, tous les journalistes même qui suivaient cette affaire-là étaient déjà informés. On avait même pensé à un inventer cette affaire mais par Aujourd'hui, mm. nous prenons acte de cette décision-là. Nous avons relevé appel de cela immédiatement. Nous avons estimé que c'est une décision qui n'est pas fondée en droit. C'est des considérations extrajudiciaires qui ont été à la base de cette condamnation-là. Euh, la procédure n'est pas une procédure adéquate. Elle n'est pas bonne. Ça a été démontré de façon pertinente par nos avocats. Mais dans le fond, la preuve irréfutable de affirmations que j'avais on comprend qu'il y a des a on comprend qu'il y a des considérations extrajudiciaires. Je suis un citoyen sénégalais, j'ai foi à la justice de mon pays. J'avais la possibilité d'accuser des magistrats membres d'une organisation que dirige la partie civile. Je ne l'ai pas fait parce que je considère que je peux foi la justice de mon pays. Et c'est pour ça que je continuerai la procédure. Je vais relever appel. Je suis un citoyen qui n'attend pas moins le respect de ses droits. Suleiman Teliko a aussi, j'ai saisi la justice euh, par le biais d'une demande du ministre de la Justice pour que je porter plainte contre lui pour m'avoir diffamé. J'ose espérer qu'en tant que citoyen sénégalais, si, les, que les Sénégalais sont égaux devant la loi, que cette autorisation

s'il plaît à Dieu, je lancerai notre tournée nationale qui, s'il plaît à Dieu, se déroulera sur deux ans. Parce que nous ferons le tour du Sénégal, commune par commune, département par département. Nous prendrons le temps à chaque étape de communier avec ce formidable peuple sénégalais qui nous attend partout, qui demande qu'à qu nous voir et nous étalerons cette tournée sur deux ans. Il nous est revenu de plusieurs sources bien informés que ces nervis que vous voyez là sont préparés également pour saboter les tournées, comme ça a été d'ailleurs le cas hier euh, avec euh, euh Bougan Gaydani. Nous attendons le moment venu, on avisera, mais comme je l'ai dit durant cette conférence de presse, nous ne sommes pas là pour nous livrer à des assassins ou des nervis pour euh, nous laisser faire. mais le peuple souverain appréciera. Nous n'attaquerons personne, mais nous répresserons, nous répresserons vigoureusement lorsqu'on sera attaqué. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine sur Sud FM Sen Radio. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans une semaine. daldi nag jàmm ci seen jotaay xibaar yi gënoon a ci ayu bés bi ci Sud FM Sen Radio. ñu dooree kaak xibaar bu tiis bi nga xam ne moo dal ci kaw askan wi ak fukki ndaw ak juróom yi nga xam ne dañoo lab ci ay géej ñàkk ca banlieue bu ndakaaru ñoom nag tolloon nañu ci fukki ak ñaar ba ñaar fukki ak ñaar lu di mel nag jaaxal lool kilifa yi waaye tamit wéjuru ndongo yi nga xam ne ci jamono ji seen xel dalatul El Hadj Moussa Thiam week-end bu tar lool lañu dund banlieue bi bile ci plage Mboro foofee sax ci début week-end bi nemmeeku nañ fa ñetti xeetu lab yoo xam ni ñooñee sax dañoo mujj faatu ba ñii di sapeur pompier daal di génnee seeni néew mbir mi gën naa tar ci dimanche ci ngoon ca plage Malika foofee nag daanaka fukki ndaw ñoo fa lab juróomi dañ leen a mujj daal di sauver waaye yeneen juróomi dañoo mujj faatu ci biir ndox mi ñooñee sax mujj nañu génnee seeni néew ci waxtu woowile ci plage bi mu dendal di gàddaay foofee tamit ñaari ndaw jot nañ faa faatu loolee rek di def total ci fukk ñaari ndaw yi nga xam ni jot nañ ñoo lab ci géejawaay waaye tamit ñett yi nga xam ni ñoo ngi ca mbooro di signaler rek ni li nga xam ne tamit ñi faatu daal seeni at moo ngi ci diggante fukki at ak ñaar bokk ci gën a mag sax moo ngi am ñaar fukki at ak ñaar jamono ji nag ci jéye ji le responsabilité yëpp nag ñoo ngi engagé wu autorité yi surtout nag ñi di préfet yi ba ci maire sax ba jàpp protection civile dañoo war a gën a renforcer li jëm ci wàllu daal ni ñuy surveiller plage yi yi nga xam ne nag daanaka jox ñu ci ndigal ñu cay sangu mën a taral daal jëfandikoo lii di gendarmerie pour rek tere fréquentation ndaw yi nga xam ne nag dañuy ñëw ci plage yi nga xam ni autorisé wuñ ko mu mel ni ci jamonoy état d'urgence ba ni que gendarme yi defee woon ci plage yi lee sapeur pompier yi nag ñoom tamit da war nañoo ami flotteur daal di zone yi nga xam ne nag daanaka daal fa la ñu nangu nit ñi yem fa ci plage yi nga xam ne nag dañ koo autorisé loolee nag ndax li nga xam ni jamono ji ndaw yi nañuy songee lii di plage yi rawatina nag ci géej yi nga xam ni moo nekk ca caaro yi ba jàpp mbaaw a ngir gën a mën a dimbali ñi nga xam ne nag ñoo di maître nageur yi nga xam ne sax ay volontaire lañu te ñooñee seen i seen i pexe bopp rek la ñuy demee ndaxte jotuñu benn ndimbal jóge collectivité territoriales yi responsabilité parents yi nag joxoñ nañ ko tamit ñooñee war nañoo gën a mën a saytu di xool daal bu baax li nga xam ni seen i doom si la ñuy dox lan la léeg-léeg sax xale yi daal di rëcc léeg-léeg sax xale yi daal di rëcc ci classe bi wala sax rëccee ca kër ga doon ay groupe nag di daal di dem ca géej ga te loolu ay jiyee rek lañ cay set lañ cay nemmeeku gi gi ñuy duppee a continuer bu nekkee nag jëluñu daal ci yi wala sax ci ay mu mujj leen di jurali musiba ci jamono ji nga xam ne nag daanaka ndaw yi dañuy faral di dem ci plage yi di féexlu El Hadj Moussa Thiam lañ jotti xibaar fii ci banlieue dakaroise pour rajo Sud FM. ca diwaanu Kaolack ay étudiants yu université bu Sine Saloum ñoo doon grève mardi daal di xaañ ba yàq ay bureau yu bëri ay climatiseur ak immobilier tojati ay vitre ca ëllëg si àllarba étudiants yu université virtuelle yu nekk ca Kaolack ak jurbeel ñoom it amal yëngu-yëngal ba génne élèves ya doon jàng ci lycée yi nekk ca seen yooyu la diwaan nee ñu lu ñu bëgg moo di ñu soppi anam yu metti yi nga xam ne ci la ñuy jàngee takk der yi sax ñoo ci mujjee dugal seen loxo ba am ñoo xam ne ci ñoom dañ leen teg loxo te war nañu toll ci fukk ak lu tegal. situation bu ni mel nag ak yeneen yoo xam ne xëy na ñu ngi koy ragal ci jamono ji tax na ba SAES section bu ndakaaru daal di dakkal bépp jàngale ca université Cheikh Anta bu ndakaaru lu ko waral nee ñu sàmm seen kaaraange ci jamono ji nga xam ne xel dalul ci daara yu kawe yi Fatou Seck Youm mooy chargé des revendications bu section SAES bu ndakaar ñu teewlu ay kàddoom ci micro El Hadj Malick Ndiaye. alors décision bi ñu jël démb lañ ko jël euh, dañu waxoon sax convoquer assemblée générale parce que assemblée générale moo am sañ-sañ arrêté cours yi mais comme ñu ngi woon ci situation bu jàmp ñun bureau bi nga xam ne ñooy représenté enseignants chercheurs yi au niveau du SAES ñoo décidé effectivement pour xool parce que dañu jànka jànkonteel ak ay gaañu gaañu ay saaga ay oto yunu nu toj ay biens yu nu toj université yoo xam ne suñu collègues yi euh, ñoo ñoo ñoom ñoo subir euh, perte yooyu donc ñu ne xaaral ñu suspendre cours ba xam effectivement euh, situation bi nu muy demee parce que mënuñu continuer tamit di exposer suñu vie collègues yi nii ci Mali Foro daal loolu moo tax ñu jël décision bi. forum civil section Guédiawaye ñu amoon toogaanu sikkimu àllarba ca mairie bu Guédiawaye bëgg nag ñu dàq décret de déclassement bi soxal littoral bi ñoom nag ne ñu génnu askan wi ci waxtaan yi nga xam ne te nañu doon fase ka noce lu soxal décret bu ni mel kuréel gi di laaj ñu amal audit ci assiette foncière boobile ndax lu ci bëri dañ ci amal lu ñu duppee occupation illégale Michel Mendy mooy coordonnateur bu forum civil section Guédiawaye ñu teewlu kook Moussa Thiam. parce que fi et bande bi saxaluñ ko fa noonu juste pour foo dañ ko fa saxal parce que dafa am njariñ donc njariñ boobu mu ngi continuer am ba léegi donc buñ xëyee tey dégg ville de Guédiawaye ne dafa am projet d'aménagement littoral bi demandé benn décret de déclassement président signé leen ko parce que tout simplement ville de Guédiawaye dafa jaar ci conseil municipal yi pour ñu ko pour ñu voter ko délibération mais ñëpp xam nañu conseil dañ leen ci mairie yi nekk biir Guédiawaye yëpp donc ñoom ñu signé décret yi beneen bi mooy président de la République Macky Sall amul benn instant ci déclaration yu mu am jëlee jëmale ko ci pandémie en conseil des ministres yoo xamante ne mës na wax ni moom dafa bëgg ñu dagg filao au contraire day wax ministre de l'environnement développement durable naka saytul filao yi naka saytul din yi na xool lu tax ñii ñi def foofu VDN 3 bi jaaree ñëpp teg seen bët ci filao yi moom muy def campagne 2019 daf ñu diggoon ci PSE moom lépp liy reforestation daf ciy taxaw lépp liy aar alam bi daf ciy taxaw mu signé benn décret de déclassement donc ñuy wax ne ñi signé décret bi njëkkee ko ci moom président de la maire de la ville Aliou Sall ak maire yi nekk Guédiawaye tey yëpp ak conseil municipaux yi nekk ville de Guédiawaye ak ci yeneen maire yi Guédiawaye yëpp ñoom ëllëg lu munti xew fii parce que dañ fi jëlee bande bi ñoom ñooy doon responsable parce que tout simplement dina am ay conséquence li firnde bi mooy daaw ba mu amee taw yu foor yi ah, fi ñu dagg jox ko magistrat yi ci ginnaaw cité bi nekk ci ginnaaw ndox mi dafa taawoon ba dafay 1 mètre am na yëpp la dugg presque yàq seen bagage yi donc noonu lay demee rek boo daggee filao yi la nature a horreur du vide ndox mi day avancé tey dañ fi taxaw pour wane ni d'accord ñu ci décret bi li ñu bëgg mooy effacer décret bi ñu annulé ko ñu abrogé ko li ñu bëgg mooy ñu def audit foncier wu bande bi nga xam kan moo ko occupé régulièrement nekk teg mu tegu ci yoon ak kan moo ko occupé irrégulièrement tegu ci yoon bu fekkee ñoo yoon daf ci am daf ci am yoon pour daan ay nit yoo xam ne dañu fote yoon daf liggéeyam li ñu jàpp mooy politiciens yi nekk Guédiawaye dafa buñ tegee seen bët ci filaawul amuñu jàmm am na ay zone yoo xamante ni commencé na am ay kër bu yàgg commencé nañ fa occupé bu foofu kenn déclassé wu ko donc tey boo jëlee décret de déclassement mel ni yooyu yëpp dañ koy dañ koy maasale ko li ñu waroon def mooy dañu war a def audit bi ba pare ci lu soxal coow li dox ci diggante Madiambal Diagne ak juge Souleymane Teliko yoon teg na daan Madiambal Diagne juróom benn weeru kaso yoo xam ne ñett yi daf koy tëdd ràpp ak alamaan boo xam ne toll na ci juróomi téeméeri junni ak juróomi million ci ay ndàmpaay kookee di Madiambal Diagne nag dañu ko doon topp ndax lu ñu duppee diffamation gannaaw ab plainte boo xam ne juge Souleymane Teliko jiite union des magistrats du Sénégal moo ko teg ci ndoddam waaye ñi koy layal ni ànduñu ci dogal bu ni mel dinañu def appel ngir soppeeku am ci mbir moomule ki li ñu tuumaal di Madiambal jaañ moom nee na amul lu ko ci bett ndax lu ni mel la doon xaar moom dafa jàpp ne li yoon teg ci kawam li ko laxas moo di ay considération extrajudiciaire ñu teewlu ko ak El Hadj Malick waaw décision bi bettuma bettul kenn ka nga hmm. xamee ne que ñu doon suivre dossier bi euh, depuis talaata euh, waa tribunal muy avocat di magistrat di personnel judiciaire di journaliste yi nga xam ne ñu doon toppam bi yëgoon nañ ko ndax xamoon nañ ne bi chambre bi délibéré euh, information amoon nañ ko nee nañ ko magistrat yi kat bëgguñu président union des magistrats perte dara jaam ci diggante diggante ak ma jàmbal kon nag kon condamnation bi nekkul la nga xamee ni mën naa sukkandiku ci yoon sukkandiku ci droit procédure bi ñëpp xam nañ ne baaxul procédure bi xam nañ ne que ba ñu toogee tribunal preuve la ma waxoon indi na ay firnde yu xam ne kenn mënu ko natable ba ki nga xam ne moo porte plainte sax nangu nañ devant le tribunal que li ma indi mooy preuve yi nga xam ne mooy li xew kon nag bu ñu ma condamné kon lan moo ko waral waaye du mbirum droit du mbirum justice loolu nag bu amee ñun citoyen lañu daj yi topp yoon ba mu jeex dinañ def appel immédiatement samay avocat sant naa leen loolu waxoon naa leen ko depuis avant-hier ni leen que bu décision bi tombé da ngeen def appel immédiatement dinañ ko def am naa yaakaar ni que dëgg mooy mujj dinañu àtte ci yoon euh, citoyen nag sénégalais la Euh, justice ñëpp la fi nekkal ñëpp ñoo war a yem ci euh, ci kanam yoon moo tax bi nga xam ne kii nga xam ne moom mooy Souleymane Téliko ko demoon na ci yoon yoon def na li mu def dinaa ko topp ba mu jeex waaye man it am na procédure bi nga xam ne dugal naa ko mooy demandé naa de la justice mu autorisé moom ma porté ko plainte daf ma diffamé am naa yaakaar daa am autorisation boobu te boo ko amee yaa naa yaakaar aussi yoon dina doxal liggéeyam kon nag ñun ay Sénégalais a euh, du ñu toog lu déglu yoon am naa yaakaar nag ni ñi nga xam ne ñoo fi nekk xam. xam-xam ne Euh, xàmmee ràññee xam na ni que lii teguñu ko ci yoon teguñu ko ci dëgg. Ousmane Sonko di njiital parti Pastef moo yëgle ne dina door ab tournée politique boo xam ne euh, mu ko tuddee nemmeeku tour te boobee tourne nga xam ne dina ko def ñaar fukki fan ak ñett ba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin waatum 2021 euh, njiital Pastef mu ngi dànkaafu nguur gi nag di ko xamal ne du nangu benn yoon ñu koy song wala di saboter boobile tournée ajuma la doon dajeek taskatu xibaar yi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Aïssatou Gueye Ba. diggante 23 ak 24 ak 25 commencé suñu tournée nationale ñu tuddee ko Nemmeeku Tour ñoo ñuy yéegal nag ni ñoom ña ngay waajal pour fu ñu dem ñu yónni seen i nervi ñu dañuy attaqué convoi Ousmane Sonko bu ko defee ñu gaawantu ne ñun ñoo andi trouble à l'ordre public ñëw jàpp ay élément sama sécurité ak yeneen ak yeneen ñoo ngi xaar ba ñu toll foofu parce que Macky Sall moomul réew mi te du ko musa moom la dund gi gën a cher lan la gaz di jar lan la ceeb di jar lan la courant di jar lan la ndox di jar lan la pomme di jar lan la soble di jar tey la waal tey la Sénégal gën a métti njàng mi est dox na professeur yow mi nekk université wax naa léegi université tam bi njàng mi ci suuf est ce dox na paj mi est ce dox na lii ma wax nag ci jafe-jafe dund bi moo tax fi may daanelee di woo sénégalais yépp nag ci benn rassemblement exceptionnel boo xam ne mercredi prochain incha allah muy le 23 juin parce que li taxoon 23 juin am ba ñu célébrer ko yi yëpp ci la woon comme nag dara soppikul boobu ak léegi ñuy laaj ñuy woo ñëpp nag ci rassemblement bi nga xam ne opposition ak société civile ñu ngi koy organiser pour ñu delloo buum ci mboy mboy ga pour ñu wax sénégalais yi malheureusement amoon nañu yaakaar waaye erreur bi gën a rëy bi ñu mës a def Sénégal c'est d'avoir élu un homme qui s'appelle Macky Sall un jour de mars 2000 2012 te la taxoon ñu élire ko yëpp muy les promesses du de de du 23 juin il les a trahis loolu moo tax ñuy woote ci ndaje boobu. mbokk déglukat yi yile xibaar a gënoon a fës ci ayu bés bi ci Sud FM seen rajo ma leen di jaajëfal jox leen dig daje dibeer bi di ñëw.